Ahmedia TV géewu lislaam ak xam-xam di tàggat ci sell ak yaatal dënn yi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمدية تي في أه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أه ما ني دي نيو yen ñi nga xamne yene saxo safo di ñu suivre au niveau

Euh, de la santé ndax ñëpp xam nañu ni euh, li nga xam ne moo yor caabi wér-gi-yaram mooy lekk bu ñuy lekk si lay jóge donc euh, di jégalu bu baax gëj def émission bi ndax ite ñoo bëri yoon lool nekkoon si ay activités yi nga xam ne tax na ba dañoo tënkoon ba mënatuñu def émission si jamono yooyu yàlla def na ginnaaw bi nga xam ne jóge nañu si benn Euh, mbir bu am solo bu ñuy naan koor koor bobu nak am nañ ci li nga xamne ne ay jangat yu bari yi nga xamne war nañ si wara jëlé ci si koor boobu euh, moo tax ñu bëggoon woyal suñu waxtaan tay si benn teunk bu ñu bëgg teunk ci si koor ban jëriñ lay indi si wër gëram Adam. doomu ndax koor bokku na si garab yu gën si garab yi nga xamne ne faj doomu adam légui nak koor bobu nak nan lay nekké garab pour mu faj doomu aadama si loola lañ bëgg a si waxtaan boobu ginnaaw bi nga xam ne woor nañu weer jógee si woor bi nga xam ne weer ñu nga doon woor weer boobu nag ginnaaw bi nga xam ne woor nga ba pare dafa mel ni dañoo jógee si examen képp ki nga xam ne jógee nga si examen da ngay xaar ñu jox la sa diplôme wala ñu jox la sa résultat donc résultat bi nga xam ne jëlee nañ ko si koor ndax ko dafa am ñaari njëriñ bu am solo bi nga xam ne moo nekk si koor mooy njëriñ bi nga xam ne bi ngay am sa diggante ak sa borom mooy yàlla ak jëriñ bi nga xam ne bi ngay am sa diggante ak sa yaram ndax yaram dafa am lu mu soxla si koor koor dafa mel ni ki nga xam dafa naan liggéey si benn société muy liggéey pendant ay at ñu ne la weer bii dañ la may nga def congé congé boobu nag mooy dañ lay permettre mbokk yi nga xam ne mu am woon jot pour gis leen pour dem seeti leen nga dem seeti leen sa xarit yi nga xam ne da toogoon ay at ay weer munu leen teg bët nga mun leen dem teg bët nga mun leen gis ngay mun a dem seeti ñi nga xam ne mooy sa liggéey bi nga xam ne sa liggéey privé bi nga xam ne loolu daf lay jural njëriñ kon nag dafa mel ni koor loolu la tënk si yaram doomu aadama ginaaw bi nga xam ne lekk nga fukki weer ak benn yàlla ne nag il faut nga def arrêt nag nga def congé congé bi nag da war a dimbale sa yaram bi pour mu daal di raxas salte bi nga xam ne moo nekk sa biir yaram moo tax koor euh, boobu lañu bëgg waxtaan njëriñ bi si nekk euh, bu leen fàtte ni euh, ki nga xam ne mooy yonent bi ki gën si bindeef wax na si xadis bu am solo ni suumu tasihu woor leen ngeen daal di am seen wér-gi-yaram ndax koor dafay wéral cër doomu aadama waaye nag ki nga xam ne mooy baayu docteur yi ku ñu naan Hippocrate ki nga xamne mom mo jëk taxawal lu ñuy naan médecine mom tamit wax na si wax bu am solo dafa ne ni soignez-vos mou avec le jeûne plutôt qu'en ayant recours aux médicaments na ngeen faj sen jangoro si koor mo gën nga si daw ci ay garab yi dul jeex kon nak ñi si wax bi bi nga xamne Hippocrate wax na ko lu yàgg yaronte bi ñew yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daal di ko daal di koy répéter encore ci hadis hadith kon li kon ni gis ni ko munu jur lenen ci doomu aadama du dul wér gi yaram léegi na wér gi yaram bobu nak nan lay demee il faut ñu mën ko chambar il faut ñu mun xolaat xoolaat gi yaram doomu aadama nan lay ñëwé ci koor motax ma bëggoon bi ñu mun fatalité fatalité touti ci li nga xam moy jëriñ bi nga mo nek ci euh yeen ñi nga ni ñu suivre Euh, maa di bëgg lancer appel solennel si walu alimentation bi ñu le comme ñu ko ndax koor lan moy koor al imsak moy sa hmm? c'est-à-dire priver euh, sa de manger et de boire du lever du soleil au coucher du soleil. mooy téye sa bopp si lekk ak naan doore ko balaa naaj bi di fenk ak bu muy sow léegi nag pendant treize heures de temps au minimum maximum quatorze heures de temps fukki waxtu ak ñeent wala fukki waxtu ak ñeent yi nga xam ne da téye sa bopp doo lekk ak naan loolu mu nekk mbir bu am solo euh, nan laa koy misaale dafa mel nii kër bi nga xam ne danga ko tëj fukki weer ak benn kër boobu ñu si sotti ay mbalit kër boobu mu poussière ay euh, comment dirais kër jargon yi bëri si kër boobu mbóoti yi bëri lépp bëri si kër boobu fukki weer ak benn nga tëj kër boobu ba pare bés bu nekk salte bi mu ngi dugg mooy lu ñuy lekk ndax boo xoolee ñun suñu alimentation lu boo xool lu bëri suñu alimentation salte bi moo gën a bëri lu ñuy dugal suñu biir léegi nga ñëw benn jour nga ne kër bi de weer bi dee fas yéene naa dam ko fas yéene euh, raxas dam ko fas yéene defar ya nga ne damay commencé si saal bi ndax saal bi mooy biir bi saal kër boobu mooy biir doomu aadam léegi nag saal boobu nag nga ne dinaa ko commencé di koy raxas mais pour nga mun a raxas salte bi nga xam ne moo nekk si saal bi il faut mu dikk la ñetti fan mooy lu ñuy naan la phase de catabolisme y la phase de catabolisme c'est la phase de destruction moo tax gis nga nit bu wooree ñetti fan yu jëkk yi dafay metti si yow bopp yi metti wala biir biy metti wala biir buy bàyyeeku wala ngay tur ndox lu bëri wala mu yëngal la c'est la phase bi nga xam ne mooy jamono bi nga xam ne dangay ngay lu bëri da ngay yàq lu bëri pour nga mën a defaraat mooy yàq buy defar am na yàq yi nga xam ne dafay defar yàq boobu na loolu ñu la la phase de catabolisme phase de catabolisme cest di la production de déchets dafay élevé déchets saleté yi dafay gën a bëri sa biir yaram ndax production bi tax nga mën a évacuer saleté bi les déchets toxiques dafay gën a élevé cellules yi dañuy soxla énergie bu bëri jamono boobu mooy énergie bi nga soxla yow yow bi nga dese sa yaram mooy jamono yi nga daan lekk énergie bi nga xam ne boobu nga dajaloon sa biir yaram ñoom dañuy dañuy utiliser énergie boobu énergie boobu ba mu jeex tàkk léegi énergie boobu bu jeexee moo tax gis nga les trois ñetti fan yi jëkkee si koor nu muy méttee si doomu aadama habitude yi nga doon am di yeewu di lekk nga yeewu lekkoo nga yeewu naanoo nga dem ba midi dafay metti si cellules yi parce que da ngaa jékki-jékki rek changer situation bi jékki-jékki rek changer li nga xam ne rythme bi nga xam ne moo doon doxee seen yaram si biir yaram bi léegi changement boobu nag dafay indi perturbation si ñoom léegi perturbation boobu nag mooy waral yaram bi dafay am changement ki nga xam dafa tàmm kafe naanatul café bopp bi di métti bii bi di métti ainsi de suite mu yay sentir c'est-à-dire boobu il faut mu am si doomu aadama loolu waru tax nga nga décourager nga dellu ginnaaw pour naan du ma woor déedéet da danga war a maintenir phase boobu ba mu jeex léegi phase catabolisme bu jeexee rek léegi nag dafa am beneen phase bi nga xam ne moom mooy taxaw mooy phase de l'autophagie l'autophagie nag énergie bi jeex na cellules yi cellules yi dañuy jël énergie bi nga xam ne dañuy jël graisse bi nekk sa biir yaram utiliser ko togg ko pour mu nekk énergie pour ñu mën a def liggéey bi léegi phase de l'autophagie boobu nag phase boobu nag mooy phase bi nga xam ne de l'anabolisme anabolisme mooy lan mooy phase bi nga xam ne yaram bi yaa ngi di permettre yaa ngi permettre sa yaram pour mu mun a faj li nga xam ne mooy jàngoro yi nekkoon sa cër yi ndax cër bu nekk dafa am lu muy soxla pour mu mun a defar li tax nga mun a am sa wér-gu-yaram léegi cër boobu nag bu demee ba yow ay weer yow yaa ngi lekk rek. té meilleur temps bi nga xamni bu muy sal bu muy raxas salte bobu moy temps bi nga wone jël pour raxas sa kër bi légui nak yow lu gëna graw nak pour ñu mëna xam ndax koor bi di nga mëna am sa wër gi yaram dina la faj wala du la faj moy ni ngay xëdé ak ni ngay ni ngay ndogo danger bi fofu la nek di nga gis nit dina wor mu yaakaar mu ngi faju mais mu ngi gëna yok fever ci si yaram yaramam mu ngi gën encore ci ci koor bu mu koor non xey dina am ci yalla ndax yàlla moom boo si jaaralee comme règle condition yuy teg si wàllu koor di nga am yàlla waaye nag sa wér-gi-yaram mooy danger bi foofu la nekk même si yàlla sax bu ñu nee si yàlla sax yàlla dafa wax wax bu am solo bi nga xam ne dañ si war a bàyyi suñu xel kulu mimma fil ard xalaalan tayyiba la wax tayyiba boobu nag ñu bëri si bàyyi xel da nga war a lekk si kaw suuf lekk bi nga xam ne bu tey lekk buy tey xel buy tey buy tey li nga xam ne dafa war a tey ànd ak yaram bi yaram bi daf ko soxla ndax yaram dafa am lu mu soxla pour mu jox la yow li nga bëgg pour nga mën a jaamu yàlla pour mu jox li nga bëgg pour nga mën a dox say soxla pour mu jox li nga bëgg pour nga mën a liggéey yaram bi lu mu soxla boo ko joxul nga jox ko lu mu soxlawul jafe-jafe la lay indi sa wérig yaram xalalam tey ba la wax kon nag boo xool neexaay bi boo xool mi bi pour biir bi fees mais xoolal li nga xam ne boo ko lekkee dina la jural tey dina la jural dal dina la jural wér-gu-yaram bi nga xam ne yow di nga mën a jàmm yàlla comme ni nga ko bëggee c'est très important ñu bàyyi suñu xel foofu bu ñu yaakaar ni lii xalaal la rek léegi nag dama koy lekk comme nu ma neexee déedéet Ahmadiyya bëri na li nga xam lu ñuy yaakaar ni xalaal la ba pare moo lay bi nga xam ne sa yaram maara baytaay doo mën a di nga di nga dem ba yow di nga tële pour jaamu yàlla sa jaamu yàlla dina manqué lu bëri dina manqué si yow parce que ni nga koy lekkee moo baaxul donc lekk dafa am ni ñu ko war a lekkee ak noo koy lekkee ak ban moment la ngon ko war a loolu dañ si war xam ci lek boobu mota bo boo suñu maam yi njëkk yi ñom ñu daan seen wu won koor nak dafa ñu pour jangal ñu ni nit da nga wara lek lek bu yam waro lek li nga xam lu upp dafa wara digi dom dafa wara yem si digg bi hmm? ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni khairul umur awsatuha lu gën si jëf ci biri moy lu mais lekk bi nga xam ne da ngay lekk lekk dafa am biir doomu aadama dafa am ñaari partie partie bi nga xam ne ndox bi la soxla partie bi nga xam ne pour sa nooy bi ngelaw bi ak bi nga xam ne lekk bi ngay lekk foofu la war a jaar mais da ngay nit dina lekk ba mu ba mu feesal place ngelaw bu mu war a nooy ba mënutoo nooy lekk ba mënutoo nooy ak bëri jamono bii tey da am na ñi nga xam dañuy topp neexaay bi ba dafay lekk ba mu mënul nooy am ñi nga xam ne dañuy lekk ba ñu jël place ndox bi. da ngay lekk ba boo yeewoo mënutoo naan danger am na loolu yëpp place yi nga xam ne biir doomu aadama dafa am partie bi nga xam ne da cër bi nga xam ne da ko war a réserver booy lekk léegi nag ginnaaw bi nga xam ne yow mënutoo réserver lekk boobu mënutoo xaajale sa lekk bi nga xam lekk bi ni mu war a jaaree ak fu mu war a jaar fu mu foofu mu jaar loolu yëpp danger bi nga xam ne toujours ñu dañ koy dund suñu wàllu wér gi léegi nag ginnaaw bi nga xam ne am nga yéene woor ndax koor daf lay yar lu bëri koor dafay yar lu bëri si doomu aadama ginnaaw bi nga xam ne fas nga yéene damay woor mooy dangay bañ lekk bañ a su suba ba ngoon su ma nee nga tëdd eh, nga lekk nga lekk damaa woor te kenn du ko yëg moo tax koor nag bu am solo la si doomu aadama décision bi nga jël naan damay woor c'est psychologique d'abord li si bopp bi lay commencé d'abord da koy tënk sa biir xol bi c'est-à-dire si sa xel sa xel bi nga ni damaa fas yéene koor fas yéene boobu nag dafay aju si li nga xam ne mooy si wàllu gëm ndax gëm nga boobu nag mooy tax nga mun a am détermination si wàllu li nga bëgg a def si journée bi moo tax dafay war mu ne lu euh, bëri koy moytu mu naan day dégg dégg muy naan damaa woo bu bu bu ñu koy indi xuloo mu ne damaa woo ndax yonent bi sax lu ñu jàngal ah nit bu la nga ne ko damaa woo lu bëri doo si dugg.

léegi nag am nga confiance yaram nga a léegi yow doxalal doxalal li la jox comme cër ak kattan ak li nga pour mu mën mun a nekk en bonne santé léegi nag yaa ngi permettre cellules yi yaa ngi permettre microbiote yi indi mooy bactéries yu mën a def seen liggéey normal léegi nag ñuy commencé mooy ñetti premier fan yi ñu commencé raxas biir moo tax biir bi dina daw ñu am na ñi nga xam ne ñetti fan yi jotu jëkk yi biir bi day daw day bàyyeeku am ñi nga xam ne bopp wala biir bi dafay métti lool wala ñu sentir métti ci seen cër yi loolu le normal la moy la phase de catabolisme de destruction donc phase bo moy phase bi nga xamné production bi dafay gën a am doole parce que moy phase bi nga xamné ne dafay dimbalé pour ñu raxas salte léegi nag lu gën a grave la yow nga woor ci suba ci ba ngoon raxas bi yépp wa salte bi yëpp ba mu mën génn si ñew nga ndogu bi ne daal di di di jëlaat sant moom it dugalaat ko encore si biir la ñuy wooree si ndog bi kon nag ñu ñëw ñu xam léegi nag ku woor est-ce que war nga xëdd wala waroo xëdd war nga ndog wala lan war a ndog lan nga war a xëdd pour nga mën a am wér-gu-yaram bi yaram bi soxla euh, Blindé léegi léegi maa ngi ñëwaat si eh, beneen numéro bi nga xam ne boobu loolu moom laay wax. koor nan lay faje doomu aadama ak nan ngay wooree nan ngay xëddee ak ñi nga xam ñoom dañuy naan ñoom duñu xëdd bu ñu xëddul danger bi nga xam ne moo si xëdd ñàkk xëdd ba pare nga siy woor ban danger la siy fekk lan la siy fekk maa ngi ñëw léegi di leen wax ni Ahmadiyya eh, TV di daje léegi léegi incha allah seen numéro eh, Ahmadiyya TV bu leen fàtte abonné di wax ni asalaamualeykum wa rahmatullahi wa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 Euh, yéen ñi nga xamné ne ñi suivre au niveau national ak international si Ahmadiyya TV ñu leen di lancer li nga xamné moy mooy un appel solennel par rapport ñi nga xam ñoo choisir faju si li ñu na la nutrithérapie nutrithérapie moy faju si lekk bi ngay lekk bi nga am sa wér-gu-yaram ñu li ñuy faj du garab mais lekk lañ lay jox bi nga am sa wér-gu-yaram lekk bobu nak si ndox lañ koy jaarale ndax xam ngeen ni ndox mo yor nit ndax l'eau représente 70% si yaram doomu adam moo tax ñun lu ñu lay faj yépp si ndox lañ koy jaarale parce que bo xolé tay feebar bi bu ñuy le bu ñuy naan ndox bi nga xam ne dafa amul ferñeent ndox yi yëpp amatul ferñeent moo tax ñun ferñeent boobu lu ñuy naan lay minéraux boobu la ñuy préparer pour jox la nga am sa wér-gu-yaram moo tax képp ki nga xam ne a suivre la bi nga am mooy feebar yi nga xam ne dañuy hôpital dañoo tëli ñu leen di naan les maladies métaboliques mooy ñu leen wooye de autrement les maladies chroniques lu mel ni diabète lu mel cancer lu mel ni AVC lu mel ni insuffisance en tout cas bëri ay feebar yi nga xam ne ñu ngi koy jàmbat si am sciatique mooy euh, di euh, hernie discale yooyu yëpp ñu dañ siy traité bi nga am sa wér-gi-yaram bu soobee yàlla léegi nag boo leen bëggee jokkoo ak ñun na ngeen jël numéro bi 77 365 44 88 77 365 44 88 wala ngeen jël wootee si numéro bi di jot sama secrétaire mu daal leen jox leen rendez-vous ko defee ñu daje ñu defal consultation bindee seen ordonnance ñu suivre leen sa euh, traitement foofu mu am nga am sa wér gu donc di leen jox di daan di leen wax ni asalaamualeykum wa rahmatullahi wa